këram laay dem jël avance pour wan la ni man déggoo ma ñu xàmmee nañ piis ak reket bi waaw wàccal nga tëtal ma kër gaamu ngay booy sama yóbbal damaa bëgg mu yegg bu gàmmu ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg-yàgg dañuy daje duubal na fi kër gi yëpp ah, ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi ayca salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen nuyu rek di leen ziar di am mbégte rek ak contentement di ànd ak saa su ne say programme Lutte TV te nag Omar ñu ngi fii nii Cambérène yaakaar naa nag fii mooy CFC fitness ah, doomu Sénégal ko moom doomu Cambérène ko moom ubbi ko muy salle de musculation bu mucc ayib gis ngeen champion yi fi entraîné yëpp yëpp yëpp waaye nag fekk fi sama grand grand cheikh moom tam nekk coach nekk moniteur bu mag a a mag ñu fekk ko nag muy tàggat beneen xale ndaw champion ni ma koy waxee rek xale la ndaw la waaye champion la parce que def na ay am ci làmb mhm. tey boo tuddee turam rek xel yëpp dina am si jëmm ju mu dem jëmm jooju nag tey moom la Lutte TV seet si mhm. ñi naan ko Bismi Ndoye ñi naan ko bébé Bismi mu jub nag combat capital combat bu rëy digganteem ak Siteu bu Ngor waaye avant dara dañ koy dalal nuyu ko bàyyi ko mu nuyu ñu koy seetaan si Lutte TV champion maa ngi lay samay ñaari waajur sant axlu bayti rasul gi yëpp sant kilifa diine yëpp di la nuyu yow Bokar du nuyu kenn du nuyu waa salle bi fi nekk ak champion yi fi nekk yëpp mhm. xam nga di mhm. bëggee sama gars yi si képp kuy jàpp si bis mi mhm. yaay di nuyu ñëpp axlu kenn du nuyu képp ki nga xamante ni day bëggee bis mi di bëggee Cambérène maa ngi lay nuyu waaw du nuyu suñu coach Cheikh tamit xam nga coach yi nekk ay coach Moussa xam nga gars yi nekk si bi ñëpp daal bàyyiwuñu kenn xam di bëggee ñëpp yee si liggéey lañ la fekk duñ la laaj si lan nga nekk waaye dañ lay laaj rek fan nga toll ci waajtaay ah si waacaay moom boobu see xam ne pare naa de mm-hmm. yee pare naa fi mu toll nii wallaahi combat bu doon suba damay ñëw rek sëgg bëre lan nga liggéey waaw liggéey naa li mbër di liggéey lépp dem naa din dem naa saal contact naa tax naa gant box naa def naa lépp loo xam ne dama koy def si làmb lu war a def si mm. def naa lépp fi mu nii mbër dina am combat ñi naan ne diw de combat bi doole la si war a liggéey ñi ne mm. combat bi de a liggéey xeex la si war a liggéey waaye boo seetloo sa waaw est-ce que bàyyi nga loolu xel. waaw man moom non sama adversaire combat am day yéex. xam na combat dafay yéex. mais combat bi moom jékku na booy bi sax si benn côté mais ba léegi combat bi gaawul noonu taxul gaaw. ah a dafay yéex moom du song du def dara day taxaw rek di xaar xaar kat la quoi te man combat bi comme li nga wax rek. Mhm. combat bi liggéey utuma si woon doole liggéeyu si doole ndax sama doole nag bi ma amoon laa si bàyyi yokku si masse yokku si dara. Mhm. peut a wàññeeku sax. Mhm. waaw pour mën a toll sama adversaire mën a gën a jëflante ak moom yee. est ce que loolu tam du du erreur. non du erreur parce que man taay bi ma yor sama taay mën na bëri 100 kilos nii ma yor nii nag mën naa jàmbaarloog 100 kilos. Mhm. ba 100 et quelques kilos 130 kilos mën naa jàmbaarloog ma ni ma toll nii. loo xam si sa adversaire. dara xamul dara. non est ce que nekkul da nga jox say bopp ay calmants Siteu bu Ngor amagul defet nekk xale. Siteu Ngor xamul dara mënul dara. Mhm. daan ay moromam yëpp. daanul kenn. nga ne cuune la. cuune le 20 ngay wane ne cuune la. dama koy corriger fu ma koy corriger delluwaat fi place am moog sama rax bii la waroon doon. correction boobu noonu dafa mel ni moom ngay dégager à tout moment ba keroog sa gis naa journal bi bind ko dafa mel ni daa am loo ko guuxal. non du question sa guuxal xam nga xale bu yaruwul. Mhm. mag bu yaru dafay koy yar. xale bu yaruwul. mag bu yaru da yar. sànq ba combat yi commencé ba léegi mu may saag di ma wax lu ne mais man tontuwuma ko parce que man loolu du sama parce que man daa lu ma gëm. man li ma gëm mooy digg géew bi laay réglé sama adversaire te laay réglé mbër digg géew dama si yar mbër. gars ko saraxu. Mhm. topp ba mu may mhm. a siiw rek mi dooy kuy bëreeg bis mi dooy àddina ñëpp lay xam wallahi azim loolu yàllaa ko def si man du loo xam damaa xamee sama bopp. combat bi lu laaj. waaw combat mooy duma daan loolu rek la laaj laajumul deneen deneen Siteu bu Ngor yombul de. ah man de duma daan laa séq moom séquma moom leneen sama waxu tey mooy sama waxu suba suba combat jaal tey su ma moom laa jëflante ak moom loolu moom dara parce que man bëgguma sax di wax parce que xam booy dañoo ndékkee seku quoi te man moom yooyu nekkul sama appétit sama appétit mooy lan xam nga mhm. sa ñaambur kuul sa kuul entraîné li a liggéey war a entraîné ñëw biir géew exploité ko ko xeex xaaruma dara lépp pare naa te lu mu andi si fekk lu gën a tar loolu. Hmm. nga nekkoon ci écurie tamit jógewaat ci ñibbisiwaat si say mbokk est-ce que loolu tamit amul lu mu la def euh, psychologiquement. daf maa gën a yokk jom gën maa yokk fulla gën maa yokk fayda. daf maa gën a yokkuloo jom yokkuloo ma fulla yokkuloo ma fayda ma gën a liggéey gën a xam fi may teg sama tànk gën a xamal maay kan. parce que daa mel ni say mbokk la jëli. waaw samay mbokk ñoo ma jëli xam nga moom nit ki nekk say mbokk dara dara dàqu ko. Mm-hmm. nekk say mbokk say mbokk ànd ak yow dara dàq. Mhm. ci àddina yee loolu la quoi. dara dàq ko dara dàq ko. kon combat moom mobilisation moom kenn dootu ko wax. non incha allah rabi damay mobiliser xam nga ñoom cinq mbër si bëri. Mhm. mais kenn du ma si yóbbaale dara. cinq mbër boo dajale xam nga ñoom ñoom bu ñu paree ku ne dangay toog xaar sa morom say supporter waaw. ah kon est-ce que duñ la si supporter. non mënuñu ma ñu ngor dañuy mobiliser man man si biir géew parce que ni may see nii man ful ak fayda si géew bi de booy fulla ak fayda laay bëreeg moom fulla ak fayda laay jëflanteeg moom jëflanteeg maa moom lu dul loolu. combat bi nag dafa mel ni yaa ko jëlal sa bopp daa am loo bëgg a prouver wala lu xew. non man prouver naa ba pare mais daa am la xamante ni lamb day toll fa xamante da am ay kilifa am ñuy waxtaan ak yow ni la defal nii ak nii. Mhm. mais su doon sama suwaa bopp kese sama jëmmi bopp kese du ma bëreeg moom. ah bëgg ko woon jël. non du woon maa ngi moom dama doon xool si kaw mais dañoo tàllal si kaw ba sonn gars yi du xaw ma lan la. Hmm. man dafa jot làmb ñi si kaw may ma sens. waaw parce que normalement tey Bébé Bismi tey ñi mu bëreel papa booy jënee mbay guy nga bëreel tey. Hmm. boo xoolee tey maanaam tey level bi ñu yegg tey dans les yow tam waroon nga yegg level boobu wala nga passé level boobu. mais bëri dañuy sóor dañuy sóor wallaay dañuy sóor te booy ñoo lay ñeme booy ñuy waxtaan man ba ma joxee avance si wax ak moom nii parce que looloo xew si man combat ko woon moom lu musul ji si biir hmm. moom maa koy wan. xale la mais def na ay de. waaw man may xale booy maa ma ñëw maase. wallahi azim ma ma leen dara mais maa leen jiitu waaw. waaw côté boobu moo tax ñu maanaam xale la ci xam nga man damaa teel am fit teel a bëre teel a dëggal sama bopp loolu kese la mais du leneen. du leneen. wallahi loo koy wax mu ngi lay xool. waaw kii li ma koy wax mooy duma daan laa séq moom séq maam ay wax ju bari wala ay dugg na fii dugg fee may wax benn baat baat ak tontu muy tontu yooyu noonu nekk moom si yooyu. duma daan laa si moom loolu kese. moom signature ngeen gis nga signature bi ni mu demee. waaw signature nañ. dafa mel ni am na lu yaakaar ah yow loo loo yaakaar dafa mel ni moom tam am na xam nga lu mu demee noonu. nit booy dem nit booy dem làmba ja te yaakaara dara da ngay nax sa bopp. te ay mboqam dee nañ ko mais wallaahi azim li ñu ko dee du loolu. Hmm. li ko dee ñu ngi koy nax de. Hmm, ñu ngi koy nax bu baax a baax a baax a baax. bismillah parewul si mystique parewul si entraînement. Hmm. parewul si dara laa pour nga bëgg a néewal doole si biir géew day metti saaxatuma nag mu liggéey li mu war a liggéey def li mu war a def ful ak fayda fonk boppam gën a fonk combat bi kooku boo dee moom day métti si yow. combat bi lu mu la jaral. combat bi sama àddina sama lépp la ma jaral sama baqen sax jaral na ma bàyyi si biir géew bi daan ma pare sax sama baqen des su waa Cambérène yóbbaale ndam lii ndamu Cambérène la lu ma leen satisfaire lu neex sama retour si Cambérène. Hmm. ñu xam ne lii kii tay jii bis mi daan na pare bàyyi fa ndam bi sax moo ma ko gënal. maanaam daan na ma pare bakkan bi des fa. bakkan bi des sax bu ma ko mënee am damay jël. l'essentiel daal lu mënti xew daan rek ma ji daan laay def incha allah jihaad nga wooteeg moom kon xeex bu tar lépp laa wooteeg moom bàyyiwuma dara lépp laa woote moom lépp lépp lépp lépp lépp bàyyiwuma dara hmm. yee yaakaar ne am na solo Siteu bu Ngor nekk la am moom tamit nekk xale boo xamante ni yaakaar ne def na ay preuve am waaye li ñuy waxee rek ñaari kuy ah, mun ñoo bokk mbalka kon faaw kenn génne ci mbalka bi si ñaar man de wax fa dëgg yàlla sama mbalka moom maa xam moom kenn du ko xëccoog man kenn du si lekk man rek maa si lekk te nag bu mag laa du ma yàq ngooñ balaa nga xam su ma duggee si biir géew bu ma jàkkaarloo yow après di nga ni bis mi waxoon na ma nag bu mag la du yàq ngooñ waaw c'est vrai parce que Bébé Bismi moom mën nga ko gis nii mu kóol ñi nga teg ko français mais at bu siflee moom day jëflanteeg yow mais parce que nit doomu aadama noonu nga war a mel nga war a civilisé xam sa bopp mhm. nga ñu naw la entraînement si lépp loolu da nga war a civilisé sa sollu nice kuul sa kuul jàpp sa ñàmbur xam ne wax ju bëri yeggalul fenn doomu nga def liggéey boobu bu baa nga ñëw parce que àdduna foofu lañ toll si muy moson bi muy lu mu doon muy ouvrier bi ku mënti doon wax ju bari yóbbu la fenn da ngay travailler gars yi gis ni lii nga travail dafa rafet nga bëre gars yi gis ni kii kat bëre bu rafet lay bëre daan loolay affaire bi mais nekkatul si ay wax affaire bi boo ko tegee si ay wax da ngay tardé parce que hmm. jamono ji kenn talatul wax. kenn talatul wax. non wax amul sens mooy zone maag booy bëgguma sax di wax wax ju bari. Hmm. parce que jëf rek laa def. jëf kase kase soxla ma si wax ju bari. jëf rek. jëf rek waaw. kon ñooy waa ginnaaw bu sant yàlla di woote wax lu bayti rasul rek di wax man awma lu dul lépp ñoom laa mm-hmm. kenn su ma yaakaaree feneen damay nax sama bopp parce que Cambérène laa am awma leneen lu dul waa Cambérène mm-hmm. du wax waa Cambérène ak lu bayti rasul gi yëpp bàyyiwuma kenn xam nga njabootu Seydina Limaamu gi yëpp nga xam ne seen maam lan yaakaaroon démb ak tey mm-hmm. di leen wax nañ jàpp si combat bi ñaanal ma gis naa ni sax nan may nan gën a yokk parce que man si njaboot gi laa bokk. si dëkk bi laa bokk si dëkk bi laa dëkk xam nga. Mhm. nañ ma gën a taxaw jeunesse bi nag gis naa ni ñu jëlee combat ak ni ñu koy préparé wu mais nañu mag ñi ñëw mottali. Mhm. mag ñi nañ gisuñu leen si. Mhm. mais ñi ngi gis jeunesse bi képp kuy jeune si Cambérène yaa ngi si waajal wàccaayu combat bi mais mag gisuñu leen si xam nga. di wax sama papa Mbaye Thiaw transitaire xam nga gis nañu gis taxawaayam si moom bu baax a baax. sama papa Mbaye Thiaw transitaire daf may jàppale di ma taxaw si côté yëpp. papa Mbaye Thiaw aw ma fayam wallaahi lu ne la may defal Papa Mbaye Dia aw ma fayam. c'est vrai lamb ji léegi moom dafa laa jàppale moom. non dafa ñu ñu mën a gérer tisati gérer kaar yi. yee noonu la demee yaakaar loolu moom bu koy am rek tey. waaw instant jël nañ ay bologu biyee. dama bëgg a dolliwaat yeneen cinq instant yi. bu ñu waxantee dëgg nag jël nañ cinq bologu biyee dina war a dolliwaat yeneen cinq après si kanam muy dix bolog. duñ ko passé nag dix bolog moom moom wax naa yaay buñ ko passé dañ yem foofu. xam nga mais su ma waxoon gars yi ñu dolli sax mais dafa fekk nit bu lay jàppale da nga koy yërëm si benn côté doo ko teg lépp ndax après leneen day ñëwaat mhm. waaw xam nga monsieur le maire tamit jàpp na si combat bu baax jënd na ay bologu bi moom tamit monsieur le dun paati man du ma wax nit ki doomu aadama lu ma defalul hmm. waaw hmm. du ma la wax yàllaa ngi lay tëju suma yàlla hmm. monsieur le dun paati jënd na ay billets yu bari yaa maam ngay jóob tamit gis nañ taxawaayam si ñun bu baax yaa maam maam ngay jóob gis nañ li mu jàppee si combat bi jàpp si kaar yeeg yëpp ak billets yi gis nañ taxawaayam bu baax a baax ku si mel ni monsieur ñaa

miracle dafa jàpp sama combat sama doomu nijaay la taxaw na si combat bu baax a baax a baax a baax xam nga maam Cheikh Fall miracle taxaw na si combat bi moo ñëng sama doomu nijaay tamit taxaw na si combat baax a baax jàpp na si yónnee na ma xaalis bu bëree bëri moo mm-hmm. ñëng sama doomu nijaay la jàpp na si mm-hmm. ak yaa sëy laay seen jàpp na si combat bi sama doomu nijaay la Italie tamit moom yónnee na si combat bi xaalis bu bëree bëri jàppal na si combat jàpp na si lépp ba si dépasse bi sax toggee sax moom moo ko géré xam nga ko jàpp na si combat bi waaw waaw waaw xam nga mm-hmm. jàpp na si combat bi xaalis baa ngi ba léegi retiré gu ma ko yónnee nañu xaalis bu baree bari bari bëri jàpp na si combat bi baax baax a baax a baax li baa samb États-Unis copé si des doon si des waaw mais dafa bu baax a ko xam la mhm. xam nga dafa ñoo xam dañ see jàpp Pape Ali Pape Ali États-Unis mhm. Pape Ali Samba États-Unis tamit dafa jàpp si combat bu baax a baax wallaay Azim da see def léppam dama bëgg lii lépp ngeen génneel ma parce xam mhm. waaw ñoom ñëpp dañ see jàpp Pape Fapal jàpp na si combat bu baax a baax yónnee na ma xaalis bu bari Pape Matar Samba États-Unis yónnee na ma xaalis bu bari dafa jàpp si combat bi wallaahi si man du ma ni kenn yàlla ngi lay nuyu te gisuma la. Mhm. dañoo jàpp si combat bu baax a baax ba mu yëg ñoom jàpp na si Pape Matar Samba. comprendre nga jàpp na si combat bu baax a baax a baax a baax suñu papa Ndiol Samba jàpp na si combat bi mu dem États-Unis yónnee nañu. kon waa États-Unis kay jàpp na si combat bi waa États-Unis ñëpp si jàpp Papa Ndiol Samb da see jàpp bu baax waa États-Unis waa ah, États-Unis. waaw nee nañ Dompat sax si sot la bokk de. Dompat si sot la bokk ku si mel ni euh, sunu bas bas mécanicien bu géejawaay bas mécanicien borom camion yi transporteur borom camion yi borom lépp borom jàmm da see jàpp bu baax a baax a baax jàpp na si ma xaalis bu bari te neen ma indi bologu billet mu jënd si bologu billet bas mécanicien sunu yaay anta an gis nañ taxawaayam si moom bu baax a baax baax tamit sunu yaay anta an abu saw pël la professeur abu saw pël maa ngi koy wax woo si combat bi da siy jàpp bu baax a baax mais nee na après dina yónni dina nee dara moom day jàpp si combat bu baax a baax a baax a baax abu saw pël la xam nga ak sama gars yi su mel ni joo xam nga buli seeti jaar xam nga bàyyi njaga njaga euro sëñ moo xam nga borom bagage xam nga. Hmm. gars yi Papa Diagne nag mention spéciale Papa Diagne Papa Diagne si nañ taxawaayam su baax. Hmm. ku lay ñaanal yëkkati xaalisam di ko si def. di woo ay xaritu ñoo xam ne ay ay kilifa lañ di leen fay xaalis pour ñu ñaanal ma teg si di ñaan jël otom otom bàyyi itam yëpp hmm. wallahi azim yëpp ñu si otom dugal ñu fu ne. xam nga kooku amuñu fayam. combat yi moom. bis bu ñu leer bis bu ñu doy ñëpp a ko kon Bismi Ndoye pare na. waaw pare naa parce que deful ma doomu aadama tax mu war ma jàppale liggéeyu ma fi loolu mais xam nga nit ku nekk xam nga ak nu mu demee quoi. waaw waaw waaw jeune Cambérène yëpp jeune Cambérène bàyyi ma kenn man Cambérène laa moom laay tiitaroo ñoom laa gëm ñoom laa faale ñoom laa safoo sama lépp Cambérène la barki Seydouna Mohamed te am naa gëm-gëm boo xamante ni man si Cambérène. Mhm. sama njortu weesu na foofu. woo la taxal woo Cambérène sama diwaan yëpp mouvement Cambérène groupe WhatsApp bu Cambérène yëpp gis naa ni ñuy taxawoo dëkk bi. Mhm. nan ma taxawal waa Cambérène yëpp ma kenn ku lim juum. Mhm. axlu bayti rasul gi yépp bàyyiwuma kenn kenn. am na solo waaw mais nag di nuyu samay mag. Mhm. samay mag dañuy sonn si man. Mhm. ak samay raq ak samay xarit bàyyiwuma kenn. dafa am ñoo xam ne jar ngeen sant ak doom baay yëpp nekk Yoff yëpp. di gërëm waa Ngor. xamante ni mi ngi si biir si si waa Ngor daal si biir. na ko maa ngi fay gërëm non non maa ngi fay gërëm non du ma wax kooku ba ñu ma Ngor maa ngi fay gërëm bu baax gis naa côté plan lépp lu soxla mu ñu koy doxal mi ngi ñu siy taxaw maa ngi gis contentement si moom bu baax a baax. dafa am top daal li ñu koy waxee. en tout cas daal agent secret. li ma la wax. buy tëb tànk nit ki balaa nga xam nit ki balaa nga xam xamal di xaw laa rey su bëree pare naa ko jàngal làmb su bëree pare naa ko luy làmb dina comprendre wallahi azim xamagul làmb lii maa la ko yónnee yóbbante suba bu Ngor. Mhm. xamagoo làmb suñu bëree pare naa la jàngal luy làmb Siteu bu Ngor yow. yaakaar naa ne message bi jaar na Omar mu nekk lu am am solo waaye nag di producteur di nuyu Touré euh, bi yegsi na maillot yi Touré Sport ku bëgg may bu baax rek may original demal Sandaga Touré Sport ñoom Mohamed Fata bii nag Seydina Ousmane moo fi jaar Touré Sport maa koy bëggee di ko jaar bu baax di nuyu waa Sandaga yëpp yëpp ni Aline Badou Diouf maa ngi koy ah, ah, leen tamit. Hmm? Bougar waaw hmm. xam daa am ñoo xamante ni. Hmm. mënu leen ñàkk gërëm. te samay kilifa lañ. dañuy jàpp si affaire bu baax a baax. sëñ Amar gis nañ taxawaayam si ñun. Issa Ndoye euh, kii Modou Ndoye. xam nga. Tafa. xam nga li wax Abbas. Mhm. ay kilifa yu may ñaanal laa lay wax mhm. nag. laaxatuwuma. Mhm. xam nga. Gorel. xam nga Pape Diagne. képp kilifa gu may ñaanal ñoom ñëpp ma si kenn ñëpp ñu dinaa seen taxawaay si man bu baax a baax a baax. ak kilifa yu nekk fii si dëkk bi ma kenn di gërëm ñëpp ak lu bayti yëpp. di gërëm waa Cambérène di man aw ma leen lu dul Cambérène combat bi nag dégg naa dem nga man dem nga Mali dem nga bi lépp Cambérène laa ngi man Cambérène mooy sama man fii laay ngemboo man génn ma fenn mais teewul teewul nga ñoom laa yaakaar ñii buñ waxee ñoom baatu laa ilaaha bi ñuy tudd baatu laa ilaaha bu ñu tudd bu nee da am da ngay am wallaahi azim parce que dañoo sell mhm. fu ñu toog ñuy waxtaanee baatu laa ilaaha illallaah moom la ñuy tudd seen làmmiñ mhm. Cambérène fii dëkku diine la mhm. naam ñun ñu ngi bëre sax ñun ay saabalan mhm. du dara de wallahi azim ay saabalan mhm. ñu ngi bëre sax mais du suñu yëf mais xam nga daa am loo xam dañ ko gëm mbiru àddina la rek mais ñun waa Cambérène maa ngi woo ñëpp

kenn kenn kenn képp ku limul rek xamal ni damaa juum. xel day fatu xel day fatu waaw. mais kon rendez vous le moom di woo Cambérène yëpp di nuyu ak lu bëri yëpp nii billet dañ koy maye sama kër. ah samedi na. waaw sama gars yi moom dégg naa dañoo am problème bu billet ah. a yomb kon gars yi rendez la ah, ak petit production. Siteu bu Ngor Bébé Bismi ku ne xam na ne. papa maa lay woo Serigne Ndiare papa. papa Serigne Ndiare maa ngi koy papa Thiaw moom maag papam ay wóolóore la mais moom maa ngi koy woo si combat yi papa. incha allah Serigne woo si combat yi. parce que a xam combat maa ngi la si woo combat nga def si li si war a def ak libaas libaas. Mhm. waaw borom marqué ak libaas bu mhm. a baax a baax. maa ngi koy woo libaas missionnaire. libaas missionnaire libaas missionnaire bu Seyna Laay maa ngi lay woo si nga jàpp si bu baax a baax di la wax sa combat la di la loxo di ñaan si lépp. Mhm. nga jàpp si bu baax a baax bàyyiwuma kenn sama papa Mbaye Kane nag fi mu tëddee yàlla na suuf sedd si kawam. sama papa dafa am góor goo xamante ni. Mm-hmm. dafa ma daan jàppale. sama papa mbaykan dafa ma daan jàppale bu baax a baax. Mm-hmm. mi ngi si biir suuf yàlla na ko yàlla defal jàmm. Mm-hmm. yàlla na àjjana doon noflaayam. te ñun am nañ si yaakaar bu baax a baax kilifa gu mag la woon si Cambérène di taxawu ñëpp. te mbindeef du xam lu mu defal doomu aadama. bu ko doomu aadama waxul nit du xam. lépp si sutura la papa mbaykan ñu ngi koy sant bu baax di gërëm sama copain nag maa mbay ñaa moo ma fayal saal bi fii may entraîné moo koy fay xam maa ngi gis taxawaayam bu baax a baax mi ngi taxaw si lépp bàyyiwuma kenn di gërëm sama gaa yëpp bàyyi ma kenn ñoom Leuz gars yëpp ñoom Baye Ndiaye gars yëpp daal ku lim jiw. ku lim jiw yeah nice. rendez-vous le ak Petit Production Cité Oro Ndiago Oro ak Ndiago Oro kuma tamit Ndiago Oro waaw yaa ma gën a këram laay dem jëli avance am pour wan ni man déggoo ma ñu xàmmee nañ piis ak rege bi waaw wàccal nga tëtal ma kër gaamu ngay boole. yow doo sama yóbbal damaa bëgg mu yegg bu gaamu ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg yàgg dañuy daje. duubal na fi kër gi yëpp ah. Ah, yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi.